xarit lañ. waaw eh, lu tax nga nga nga gën a yéene waa waa waa Pastef ko waa Benno. est-ce ce que waa Benno yéene woon nañ Amadou Ba kii kii. yéene woon nañ ko ko man nag président sans bopp laa gënoon a yéeme Amadou Ba Diomaye yëpp. loolu kay duma ci daw <laughs> saa bopp kay laa gën a saa bopp ma la gënal du gànnaar mais xamoon naa ne mënuma ci jot. moo tax sax man soo gisee li ma doon prôné mooy nañ def ay débat avec la population directement gisoo déggoo ma fenn benn meeting da ngay bàyyi politique. politique. Hmm. man damaa mos a nekk ci politique. non ndax da ngay bàyyi. damaa mos a nekk ci politique. non si man xam nga lan laay def si yaa ngi woon ci politique. waaw xaar xam nga lan laay def <laughs> yaa ngi woon xam nga lan laay def. Eh. bu élection jotee ma dem ci élection loolu rek laay def. waaw d'accord mais ndax ndax xoolal li la koy jox exemple awma parti. ndax da ngay bàyyi awma coalition xoolal demul xel may mën a awma parti awma coalition awma dara. ndax da ngay bàyyi wut mandat électif. mandat électif. waaw yàlla xam. muy député dama la waxoon fii. muy député dama la wax mairie moom. muy président mairie moom mairie moom. ah déedéet. moom mën naa ko wax. député man xam nga mënumaa nekk député mënumaa ko nekk mënuma ko nekk toog assemblée. <laughs> di waxi lu wax mënuma ko. ministre mënuma ko. danaa keroog fii ko ne woon kay nekk premier ministre mën naa nekk conseiller ministre. demoon élection présidentielle nag di nga présenté. naa nekk conseiller ministre bu jotee te ma xool samay capacité te man ko danaa ci dem bu ma xoolee samay capacité mënu ma ko duma ci dem waaye duma ci dem parce que dem naa ci parti bi coalition noonu déedéet déedéet déedéet merci kon man politique bu ma dama ne la politique bu ma parce que wax yi may wax ku toog ba janvier muy tëj muy taxaw ne nit ñi liggéey leen wala du ma leen fay sare te nekk ci campagne ku toog ci janvier ñëpp di campagne ñu ne la salon d'agriculture de Paris ma nga am nga ne ko fi ñu ko mooy diggante bi nga xam ne nii affaire baa ngi jaaxasoo ñu xam dama ko fi ko dem Paris bañ génne kii bi ma doog di ñëwaat dem dem salon de l' agriculture kon man may mun a dama bëgg nit ñi xam ne man dugguma ci politique pour wut ci ndam pour wut ci kii. Euh, euh, mandat mandat xam nga Kaolack lan la may coûter man par mois fi nii. Hmm. ci sama xaalisu bopp vingt cinq millions. par mois waaw xam nga ñaata dama état bi fay ci mairie bi un million cinq. xam nga lu tax personnel ba fu nekk dañu nanguwut liggéey am nañu nanguwul liggéey bu baax ñu ngay liggéey wax dëgg yàlla duma wax ñëpp waaye dafa am ñoo xam ne nanguwuñoo liggéey te dañ ko tàmm tàmmin danaa mujj recruter ay jeunes jeunes yi cent vingt lañ moom man naa ñaari at maa leen di fay parce que ba mu leen fayul woon du ma def dara kaw la muy gàcce ci man. waaw xaar xaar maa nga mm-hmm. xaar maa nga kaw la xam nga ne dëkk la boo xam ne tous les jours gàmm kiis li nangam hmm. te loi mairie mayu ko amul fenn li amul ligne boo mën a def religieux amul benn yoon lañ essayé dara mu indi coow lu mag a mag a mag xam nga lan la gàmmu gàmmu euh, Medina Baye am ñu war a jënd ceeb ceeb ñu joxe wuñ xaalis pour joxe ko ñu dem waxtaan ak percepteur mu ne leen rekk fi mën a nekk ngeen utiliser lii bi ñu def ay ASC xam nga ASC mu ne association sport et culturelle mu ne la l'événement religieux c'est un événement culturel utiliser noonu loolu ngeen def ko mais bañ ko defee. coow li ne kuur coow li ne xam nga ñu andi coow li mooy ASC yaa indi coow li coow du waa kaw wax de ka jot ceeb bi indiwul coow waaye ay ASC yi yaakaaroon ne loolu ñoo ko doon te boo leen ko joxee boo leen ko joxee xamoo fu ñu koy dugal. dañ koy séddoo ñu ngi mën dema xam naa ne dañ koy séddoo looloo tax sax ren dama leen a jox jox naa leen ko waaye dama ne leen dama tegaat beneen cent millions à côté ne leen ku ma da ngeen may indil ay projet pour que ngeen mën a autonome mënu leen a dugg ci subvention ASC bu daan jot ay cent mille trois cent mille mën na maa indil suba projet. waaw da xool ak Birame Souleye ci sponsoring ne dootul am. ah déedéet man man non non sponsoring teranga la teranga la man nga man man de bañu ma ko ma sponsoring dara mën naa caa bañ a dem nag. mën naa caa bañ a joxe aay waaye bañu ma ko ma ko def wax dëgg yàlla mën naa caa def sax sponsoring ko ma ko def ma def ci sama teraanga ndax kat man damay def foire internationale di wut ay sponsor ñu nekk fa def ay gerte door bañu ma ko de hmm. waaw bañu ma ko de waaw sëriñ ah. eh, gi a diis wala dafa woyof gën a woyof <laughs> bu baax sax bu baax a baax sax bu baax parce que xam nga looloo tax sax ah. ma bëgg sax ñaar moo am man damaa yàkkamti man sax bu ñu ne woon suba dañuy def délégation spéciale man dama fàtt xam nga lu tax damaa yàkkamti dop toppatoo sama liggéey te liggéey bi xam nga lan la lenn de moom jàpp ko <laughs> dama koy combattre ba tëdd ci suuf mooy chambre de commerce <laughs> non kon yow yow yow yow politique kaw Kaolack yeeg lépp dafa dafa dafa dafa xaw a yëngal sa gafaka gi mais bien sûr yow tamit ah. su ko yëngatul woon parce na ma waroon a liggéey liggéey ba ko te maa ngi te li mu metti sax mooy amatoo vie famille dama daan toog weekend ma ànd ak samay doom man ko bëgg natation laa damay dem def natation def lépp. Hmm. ah mais daf ko yëngal waaw mais garaawul xam nga doomu aadama bu la yàlla defalee teraanga bul bañ sonn ci nit ñi. Hmm. rëccuwuma ko waaye ma profité. waaye yaakaar gaa yaa ngi toog naan sëriñ bu mooy premier milliardaire dañuy wax rek. Hmm. <laughs> man liñ may wax liñ may wax. liñ may waxal. amul neel neel amin. non du mën naa wax amin xam nga lu tax mais ñi ko defaat xam nga manipulation dafa bari. ah. dañuy manipuler gis nga suñ secteur privé bi dañ lay manipuler dañuy manipule nit ñi ba nit ki loo lu mu la ñaan joxoo ko rek mun a xoolal de am na 400 milliards am na sama mbokk daara yu ma koy wax. amoo 400 milliards. waaye mën na maa am sax dizaine ou 400 milliards dama ko am. <laughs> mais neel amin rek. waaw mais damay wax waaye aw damay wax li dëgg aw ma ko. man nekkuma fi di jaay farlu ooma ko su ma sañoon am ko su ma sañoon sax am ko waaye mënu ma koo denc ndax wax dëgg yàlla su ma amoon 400 milliards xam naa ne danaa ko wàññi dimbali ci ñeneen parce que doomu aadama looy doyee xaalis bari booy denc xam nga man dama nekk taalibe man ceeb bu weex sax mën naa koo añ waaw merci aw ma ci problème